ndaw APR yi kat fëgg nañu ci taabal bi ni kat récréation bi moom jeex na dootuñu may di kenn di attaqué njiitu réew mi wala chantage jamono ji président Macky Sall li mu tal mooy chantier yi ak réalisation yi kuy wax na nga wax si lu nu mel rawat na fii si Touba. moo tax réalisation yi nga xam ni yëpp am na biir ci Sénégal ñu gis ko teg ci suñu bët gis projet yi nga xam ni président am na ko te Touba desu ci ginnaaw yaakaar naa euh, le coordinateur Bassirou bi wax moo ngi wax euh, réalisation yi mu def yi mu def yi mu def sàmm yi mu def Touba bari na mat na quatre-vingts milliards yoo nga xam ni ay réalisation yoo xam ni mooy ngi en cours te réalisation yooyu bi ñu koy visiter yaakaar naa bépp ndaw ak bépp responsable boo nga xam ni yaa ngi ci dëkk bi yaa nga ca woon kon xam nañ ni président li mu war ci dëkk bi moo ngi koy def sans compter nag li nga xam ni mooy les bourses de sécurité familiale sans compter la couverture maladi universelle bi nga xam ni les les enfants de mois de cinq ans bu ñu feebaree bu ñu demee ci poste de santé yi duñ fa duñ fay césarienne bi la même chose. fii ci Boukhatoul Moubarak yàgg nañoo jooy ab tali man fii laa dëkk euh, ci ayu président de la République bii nii wax dëgg yàlla ci lañ gisee ñu tàmbali fi chantier PACASEN boo xam ne télé bi mu ngi ñëw ku ne gis na corniche bi war a dëkk bi ku ne gis na hôpital bu bees bi nga xam ne président de la République mi ngi koy tàmbali. suñu objectif nag mooy fexe ba élection yi ñu jëm ñu gagné ko massivement. première fois Benno Bokk Yaakaar gagné au niveau du département gagné googu nag jàpp naa ne li ci war a jiitu mooy ñun ndaw ñu ñoo bëgg ñoo war a ne ci kanam te ñun ñoo fas yéenee ne ci kanam niñ ko daan defee ndaka jekk ñooy lance de feeru parti bi képp koo xam ne taxaw nga pour saboter loolu wala nga yàq loolu bala ngaa daj kenn ñun ndaw ñooñu nga xam ne jàpp nañu ñun ñooy ndaw yi président de la République ñun ñoo fas yéenee ne ci kanam te. léegi yàlla dogal na moom ba mu ñëwee ci neuf femmes yi am na hôpital boo xam ne andil nañu ko. kon ñun bu ñu amee lu ñuy laaj te dañ koy laaj ngir suñu askan ak suñu ndaw parce que gën nañu ne man bu ma jógee di politique wala kenn ku mu doon ci ñun bu jógee di politique boppam taxut ak njabootam taxut mais dañuy politique ngir suñu askan ngir lépp lu jariñ askanu Touba ñun ñoo nga ci biir daañu ci gis suñu bopp loolu mooy li tax ñun bu ñu amee lu ñuy wax mooy dañuy ne hôpital booba ñu sant ko ci gërëm ko ci tey ñaan lépp loo xam ne génnee na ca ca wàllu emploi mu ndaw mu bari nañu fexe ba loolu na des biir Touba ñu ndaw Touba lañuy xeexal leneen loo xam ne bu ñu amee lu ñuy wax mooy Prodac bii nga xam ne dafay lu ama am solo te ñu gis na mën na lu mu ndaw ndaw jël 1000 jeunes ba noppi jël ay jeunes def leen leen formation agricole